dalee nag jàmm wàññi teggi ñu wàññi natuk Sénégal moo dis def li ni mel ak leeral yi ci ministère bi ñu dénk wàllum koppar yi daal di indi bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi aser gi juróomi fan ci weeru octobre 2024 waaye ñu dooree ko ak législative anticipée yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ak Sud Quotidien bi fësal ci xëtam bu njëkk ne rek wàññi bu baax lu jëm ci tension politique bi ci wàccaay élection yi ni ko pouvoir beeg opposition bi yëpp nag lañ cay daal di xaarandi suñu ko si suñu naataangoo yi lu jëm rek ci wàññi boobu lépp tension nag ginnaaw ba ñu daal di rek classé sans ñu doon toppee ñenn ci ay acteurs politiques ak taskatu xibaar ci jëm rek ci délit d'opinion loolee nag ñu ne yenn ci acteurs société civile yi daan ci bàyyi xel bu baax yéene kaay bi daal di jox kàddu Babacar Ba bu forum du justiciable Alioune Tine bu Africa Jom Center wala Moundiaye Cissé bu ONG 3D laata loolu solo yéene kaay xam leen di fësal altine bi ñu dëdmal jëm ci élection législative yi ci jamono yoo xamante ni nag yenn ci ay liste sax daa mel ni nee nañu duñu daal di bokk ci yooyu lépp élection suñu sukkandikoo ci bés bi le jour ay liste yu ñu daal di rejeté nag ndax lii di cahier de sarge bi nag respecté wuñu ko benn yoon tribune yéen kaay moo koy daal di leeral ci xët bu njëkk bu quotidien le quotidien tere ñiy tere rek tukki ñu ne ay AIBD terminal politique la yéen bi daa jox kàddu Madiambal Diagne mu la ñu daal di tekkër ci ndondam moom suñu sukkandikoo ci moom ay avocat ñoom ñoo ko daal di xelal mu daal di rek jàppaat beneen nëpp bés ngir dem daal di tukki lu ko moy rek mu daal di ut ab huissier de justice bu ko daal di teewal loolee la daal di leeral ci yenekaay bi tere ñiy tere yooyu lépp euh, tukki nag ak li ñuy bunt xataal ñu ne yenn ci acteur politique yi neexul benn yoon euh, opposant bi di xalifa Ababacar Sall bi daal di yëkkati kàddoom bu baax euh, ci tu yéenekaay bi di l'info mu ne nag nakar nag la daal di yëgee li ñu daal di tere génnuk réewum Sénégal taskatu xibaar bi di ma Madiambal Diagne ci loo xamante ni nag dañoo sàkku ci moom mu daal leen di delloo ab passeport diplomatique boo xamante ni nag amu ko benn yoon loolee nag Khalifa Ababacar Sall daan na koy nakarul bu baax a baax ci bi lépp yéenekaay wàññi gi ñu wàññi note bu Sénégal Moody's def li ni mel fës na lool ci xëtu yéenekaay yi bés bi le jour jàpp ni bi lépp beesub not bu Sénégal nag ca b en la ko indi rek mooy lim yi baaxul yi daal di joxe nguur bi passé daan na koy daal di def suñu naataangoo yi daal di dikkaat jël bu baax bataaxalu ko ministère des finances bi leeral nag ni wàññiteek bi nag li ko waral rek di yokk yokkuteek déficit budgétaire bi ak bor bi nga xamante ni jël nañ ko fi mu daal di toll ci réewum Sénégal notation de l'agence Moody's Sénégal nag delloo nañ ko ginnaaw lii quotidien moom moo fësal lii ci xëtam bu njëkk mu ne nag situation bi dina gën a jéggi dayo su fekkee rek waaye ministère bi ñu dénk wàllum koppar ci réewum Sénégal ci bés bi la jour ma ngay dalal xel yi ne dina am ay jéego yu am solo ak coppite yu gaaw te rëy dees na ko daal di amal ngir rek mën a coppi bi lekk situation yéenekaay bi di Les Échos nak daal di xamle ci xëtam bu jëkk ab plainte jëme ko ci alaxam bu homme d'affaires bi di Abdoulaye Sylla ginnaaw bu ñu ko daal di dégloo ñeel wàllub benn virement bu toll ci ñaar yu toftal juróomi million euro jagleel ko benn na bu baax ci trafic de drogue yor téléphone bu jaarul yoon ci biir kaso yi mu ne prison bu Sénégal nag ab passoire la ñu wax ci leneen ak beneen yéenekaay di la Soleil suñu jant réew daal di xamle si xëtam bu njëkk juróomeele ko bëccëg bu ñu jagleel seetal suñu réew ñu jagleel ko ci weer bi nag école yi mu ne ab mobilisation ngir rek mën a daal di seetal bu baax a baax yooyu lépp école yéenekaay bi xamle na njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina dellu sax ngir mën faa daal di amal bi lépp supp seetal suñu réew yéenekaay bi daal koy jagleel pàcc bu yaa l'observateur moom ci xëtam bu njëkk daa dikk rek jox ay kàddu ay seede jigéen ñi nga xamante ni dañoo daal di wér eh, ci cancer ci weeru octobre rose bi ñu jagleel xeex boobu lépp cancer bi jàpp wenn beneen pëtiis señel wàllum tukki gu jaarul yoon gi le bundu nag mi ngi cib eh, dëcc laas yéenekaay mooñ ko daal di xamal ci xëtam bu njëkk enquête quotidien moom général bu SEN'EAU mu ne les de Maguette Niang loolee la fësal ci xëtam mu njëkk boobleb waxtaan mënees ko daal di jàng ci xët yu juróom-benn ak juróom-ñaar yu bi lépp yéenekaay wàllum tàggat yaram lañ koy daal di ndar keppe ak ñaari jongante yi war a dox diggante Sénégal ak Malawi ñu ne ab liste bu ñaar fukk ak juróom-benn joueur daan nañu koy fësal ña war a toog ca banc de touche ba nag di Pape Thiaw ak Teddy Pellerin ñoom lañ fa tegandoo ginnaaw ba nga xamante ni nag yeesalaatuñu contrat bu sportif yëpp nag daal di nañu xëy daal di ñu koy eh, xibaar kon mbokk yi lii moo gënoon a fës ci yéenekaay yi ñu ñaanal leen kenn dalug jàmm leen Bonjour. La baisse de la note du Sénégal par Moody's et les justifications du ministère des Finances occupent la une de plusieurs quotidiens de ce samedi 5 octobre 2024. Mais débutons par les législatives anticipées du 17 novembre 2024 avec Sud Quotidien qui barre à sa une des crispations de la tension politique en cette veille d'élection, pouvoir et opposition interpellés. Selon nos confrères, le vent de dégel de la tension ensuite des dossiers de poursuite enclenchés contre certains acteurs politiques et des médias sur la base des délits d'opinion ne laissent pas indifférents certains acteurs de la société euh, civile. Le journal a donné la parole à Babacar Ba du Forum du Justiciable, Alioune Tine d'Africa Jom Center et Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. En attendant, Le Soleil informe que les listes provisoires seront publiées ce lundi en vue des législatives du 17 novembre, alors que des listes listes sont déjà déclarées irrecevables, note Busby le jour. Des listes rejetées pour n'avoir pas respecté le cahier de charge, précise le quotidien La Tribune. À la une du quotidien Le Quotidien, interdiction de voyage AIBD terminal politique. Le journal donne la parole à Madjambal Diagne qui dénonce de villes tracasseries à son endroit. Selon lui, ses avocats l'ont conseillé de reprogrammer son voyage et le camp échéant de se faire assister d'un huissier de justice explique-t-il. Des interdictions de voyage et tracasseries euh, qui ne sont pas du goût de l'opposant Khalifa Ababakar Sall qui hausse le ton à la une de l'info. C'est avec consternation que j'ai appris l'interdiction de sortie du territoire du journaliste Madiambal Diagne avec comme motif la demande de restitution d'un passeport diplomatique dont il ne dispose pas, regrette Khalifa Ababakar Sall dans ce journal. La baisse de la note du Sénégal par Moody's Bi les journaux pour Bës le jour cette baisse de la note du Sénégal à b découle des dégâts de faux chiffres nos confrères reprenant le communiqué du ministère des Finances expliquent cette dégradation par la baisse du déficit budgétaire et du niveau euh, d'endettement notation de l'agence Moody's euh, le Sénégal rétrogradé Barli quotidien à sa une la situation pourrait s'empirer si les efforts de redressement ne parviennent pas à inverser la tendance actuelle mais rassure le ministre des Finances euh, qui dans Bës Bi Le Jour assure qu'il y aura des réformes rapides et ambitieuses. Le quotidien Les Échos informe à sa une cette plainte contre X de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla après son audition euh, pour un virement de 2,5 millions d'euros au profit d'une société de Mame Mbaye Le journal à sa une également euh, trafic de drogue, détention illégale de téléphone en milieu carcéral, la prison sénégalaise une passoire. Le Soleil l'Astre de Hann affiche à sa une la cinquième journée de Setal Sunu Réew consacrée aux écoles mobilisation pour une cure de jouvence le journal annonce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu ce samedi au lycée Demba Diop de Mbour l'observateur barre à sa une des témoignages de femmes guéries du cancer en ce mois d'octobre rose d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein un autre drame celui de la migration irrégulière le bundu en deuil titre L'As quotidien à sa une enquête quotidien affiche lui à sa une l'entretien avec le directeur général de Sen'Eau les vérités de Maguette Niang entretien à lire aux pages 6 et 7 du journal du sport pour terminer avec la double confrontation du Sénégal face au Malawi euh, pour les qualifications de la CAN 2025 au Maroc une liste de 26 joueurs euh, publiée et un duo Pape Thiaw et Teddy pour assurer l'intérim informe quotidien sportif. Euh, à vos journaux et très bonne lecture.